xarit maa ngi lay ziar di la dalal sa émission and ak waa Sodefo waxtaanee nag tey moom spécialement pépinière. bis bu ne nga gis baykat bu jënd semence boo xam ni qualité la cher na wante yoon wi nga koy awalee moo tax du am lu ko ci neex. yoon wi nga xam ni moo gën te mucc ayib moom la bëgg nag tey ñu waxtaan ci. place bu ñuy def pépinière nag dinañ ko tànn place la boo xam ni dafa war a set. sell ba pare ngelaw gi ak ndox mi duñ ko yàq gannaaw bi nga ñëwee dressé sa plan ba pare dugal fumier wëlbati suuf si ñu ngi lay conseillé nga indi football super moom tamit insecticide nématicide du sol la mu nga xam ni mboolem jalaal yi ci suuf ak nématode yi dina leen téye ak sànqaleñ ji ba nga xam ni yow sa semence duñ ko sulli duñ ko gàllankoor tamit ba nga xam ne doo am levée bi la gëral bi nga jiwee sa semence nag di nga ko muur boolek ak arrosage bi bu ko defee soo toogee ay fan lu mat une semaine ci yenn xeetu gàncax yi rek di nga mën ñëw muri sa pépinière soo muree sa pépinière nag di fekk euh, gàncax gi commencé sax soo ko mayee ñaar ñetti fan ba mu jóg rek nga xam ni xobu garab yi ñi ngi commencé taxaw da ngay indi sa fongicide bi ñuy woowee athlète atlet nag dafa am benn xeetu ruur boo xam ni doo gis benn gunóor buy ñëw di lekk euh, xob yi wante soo bàyyee noonu rek sa pépinière te traité woo ko da gis muy seey loolu maladie fongique lañ koy woowee mu mel ni fusariose mel ni piccam xeetu ruur googu nag ay na lool ci pépinière te gaaw na lool ci seeyal ka maa ngi ciy insister loolu ci baykat yi ñu sarax ñu rek di ko boole seen programme ndax lii euh, jaaykatu produit yu bare da leen di indil problème ndax dañuy defar pépi dañ lay jaay semence bu baax wante ñàkk jënd produit bi di ko ci dugal rek mooy indi gàllankoor ci sunu liggéey. bu ñu weesoo fii nag nga dem gàncax gi commencé def ay xob yu mag fii nag war nañ mën a indi une fois par semaine benn insecticide. bi nga xam ne mooy aar gàncax gi ci gunóor yooyu ñuy woowee insecte piqueur suceur nga xam ni dañuy ñëw mel ni trips yi di muucu gàncax gi ñu bare daan nañ indi ure pour renforcer seen pépinière wante daf daan lakk xob yi moo waral nag ñu indi leen ay engrais foliaire yoo xam ne njëriñ leen daan am ci urée dina ko indi boole ci tamit euh, ferñeent yu mel ni oligo éléments yi dinañ tax reen bi gaaw a développé garab gi màgg xob yi tàlli ba nga xam da am pépinière gu rafet gu dijj te mat ci diir bu gën a gàtt paquet technique bii nga xam ne Solivo moom la la nag mën nga ko utiliser ci pépinière tamaate wala pépinière soble yi wala bépp pépinière u